Amen. asalaamu aleykum ma bëggoon nag ginnaaw bi leen gërëmee sant leen ñu may nu ñu tàmbale mbir mi tàmbali liggéey bi c'est vrai woy yi noox na lool tàccu yi neex na lool waaye am na lu nga xam ni moo ñu fi indi tey te li ñu fi indi tey dafa laaj aussi dégluwante moo tax may ñaan ñëpp ñu mën a commencer déglu waxtu yu nekk waxtu yu nekk woy neex na lool tàccu neex na lool waaye li étudiants yi di wax l'heure est grave foofu la ñu toll si l'heure est grave nag tàccu yi neex na mais nañ ci boole ñu dégluwante nous sommes dans une posture de combat posture de combat c'est bien Oui, nyani, Sabotei, Tatui, c'est bien mais nous devons être dans des postures de combat Des postures de combat des postures posture posture une jeunesse debout comme nous la voyons aujourd'hui des femmes debout mais surtout et surtout un parti debout ce que nous nous constaté ici, en permanence moi, moo tax ma présence malgré convocation bu hier. bi ci initiative Pape Malik Ndour ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse et de l'emploi ci initiative bu Mame ministre du tourisme principal acteur de ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi initiative Farmangom ak man mi militants, militant sympathisants. Abdoulaye Sow ma suis presse bi ma bëggoon rek ma wax leen nuñ ko bëgg man déclaration liminaire bi en français suñu paré suñu rak Pape Malick Ndour nos moy collègue ministre de la jeunesse et de l'emploi dana ko faram-fàccee ci wolof mais yokk ci itam li nga xamni mom la jangate situation buñu paré ki nga xamni moy mooy Farba Ngom dana ci yokk tuuti bu ci yokkee tuuti ba paré ministre Mbaye Niang nga xam ne moom moo nekkoon ci tribunal ba moo fekkee moo fekkee te comme que suñu waa ji moom day inventé Mame Mbaye Niang va rétablir la vérité des faits kon journaliste yi suñu nangoo procédure boobu ñu commencé loolu ma bëgg ñu commencé mesdames messieurs les journalistes Nous vous remercions d'avoir répondu en masse à notre invitation, même si c'est dans l'urgence. Chers concitoyens, ce jeudi 16 février 2023 sera sans aucun doute inscrit dans le marbre de notre histoire politique. En ce jour, en effet, nous en sommes tous témoins de la forme suprême de l'irresponsabilité politique et de la forfaiture morale. Après avoir traîné un citoyen dans la boue, porté gravement atteinte à son honorabilité, diffusé de fausses rumeurs, Ousmane Sonko, se sentant de plus en plus lâché et isolé, renoue avec ses pratiques favorites. Pas plus tard qu'hier seulement, il a insulté tous les acteurs de notre système judiciaire, citant nommément de hauts magistrats sur fond de menaces d'une gravité extrême. Injures, menaces, défiances quotidiennes et attaques permanentes contre nos institutions, voilà ce qui caractérise le bonhomme. Ce dernier se pense au-dessus des lois, s'autorise à injurier nos marabouts, et de mettre en œuvre sa volonté de brûler le pays suite à ses turpitudes et errances privées qui, qui le démasquent au grand jour. Pour laver un honneur, Mambaïnian l'a traduit devant la justice. En sa réponse claire et sans ambiguïté aucune, a été de lancer un appel à un assaut massif au tribunal pour empêcher à tout prix que le procès ne se tienne drôle de manière de démontrer qu'on a la vérité avec soi. Pour nous et le monde entier peut en attester. On retient que le peuple sénégalais a refusé de suivre la voie de l'amateurisme, du mensonge et de la défiance infecte. Qu'il a tout au contraire choisi la voie de la raison et de la responsabilité en s'éloignant d'un politique radioactif qui transforme des questions privées en questions politiques. De même, cette journée a témoigné de la plus belle des manières de la solidité de notre système judiciaire qui n'a nullement cédé aux menaces du colosse au pied d'argile, du véritable tigre en papier. Enfin, l'État de droit a montré qu'il reste debout et prêt à faire respecter les valeurs et principes de la République tout en rappelant que lui seul a le monopole de la violence légitime. Cette journée a enfin témoigné d'une grande vérité. Ousmane Sonko se complaît dans les déférés, dans les différés et reports gratuits. Que tous les Sénégalais sachent que c'est lui, Ousmane Sonko, qui a encore demandé et qui demande toujours des reports et autres différés, pour quiconque se soucie de la vérité de la preuve, ne saurait être plus éloquente que sa culpabilité. Chers compatriotes, Ousmane Sonko est en vérité une grande escroquerie politique de notre pays. Jamais, jamais, jamais dans notre histoire, jamais dans notre histoire politique, notre pays n'a connu un homme aussi versatile, à la parole changeante, comme les, couleurs du caméléon. Ces attaques contre le système judiciaire sont dans le fond un aveu, un aveu, plus qu'une posture de résistance. Pour ce qui nous concerne, militants et sympathisants du parti et de la coalition, nous pouvons vous assurer que M. Mambaignan ne lâchera rien du tout. M. Mambaignan ne reculera pas, qu'il ira jusqu'au bout de son combat avec nous pour que justice, pour que justice soit faite et que soit dit le droit dans toute sa beauté. Cette bataille sera menée dans le respect absolu des règles et lois en vigueur au Sénégal avec le soutien actif de tous les militants que nous sommes, mais aussi de tous les Sénégalais épris de justice et de droit. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le le sœur ministre Fadjane, ministre de la femme ministre de la femme le dans le combat biñu paré déclaration liminaire bi dana jox cadeau gi suñu rak suñu collègue Pape Malik Ndour mu faram faccé ko ci wolof après dana jox cadeau gi Pape en deux minutes et après Farba et Mambayna vont va clôturer Pape Malick Ndour vous avez la parole Nous you la présence de notre oncle le ministre d'État M. mais aussi honorable député notre sœur Mangé

mu woo la tribunal ne la kaa layoo au lieu nga dem wuy ji wala nga dem yóbbu preuve comme ni nga ko promettoon Sénégalais yi nga dem ne da ngay woo yaay woo xale yi pour ñu xeex xale yi wu ñu xeex xale yi xam lu ñu soxla nga jox leen preuve yi nga waxoon ne moom nga am contre le ministre Mame Mbaye politicien boo xam ne bàyyiwul avocat bàyyiwul député bàyyiwul ministre bàyyiwul juge bàyyiwul sëriñ bàyyiwul kenn xas wax lu ñaaw tuumaal sos ak wax loo xam ne amul loolu lañ ko xamee kooku nag suñ ko woyee yoon mu war a yóbbu ay preuve di guddal jël naan dama bëgg nga mayaat ma ma xalaat wala ngeen mayaat ma ma wuti preuve yi ñenn ñi sax ne lañ dafa fàtte preuve yi si ñun dégluwuñu loolu xaaruñu loolu ba yoon buñ ko woowee dafa ne woon complot la mais bii mënul wax ne complot la parce que flagrant délit de mensonge la ndax nit ñee la wër caméra yu bëri sénégalais yi di la déglu ngay wax ba xaabaabal ñu woo la ci yoon nag li nga war a def mooy wuyu waaye nag déglu nañ ko muy défier les institutions de la république ñu ngi profité ci occasion bi pour féliciter l'État yaakaar naa tey bépp Sénégalais bépp démocrate bépp républicain bépp patriote kontaan na ci police kontaan na ci gendarmerie mais aussi et surtout kontaan na ci justice ndax justice bi liir na droit ñuy wax na dégg nañ ko barki démb muy traiter les magistrats de lâches ñu ngi profité ci occasion bi pour wax AMS wala UMS Union des magistrats du Sénégal ñu génn ndax nag dëkk bi il faut ñu wax la fi xew ku bokk ci nguur su génnee wax li nga xalaat ci réew mi ñu traité la arrogant traité d'impoli traité de personne irresponsable alors que Ousmane Sonko irresponsabilité boo ko caractérisé te kenn du wax ñu ngi profité ci occasion bi pour wax ñëpp ñi nga xam ne dañuy ne ñoom ay neutre lañu dañu ne ñoom Sénégal moo leen intéressé ñu génn nag ñoom tey wax lan nañu xam ak lan nañu xalaat ci Ousmane Sonko. loolu dina am solo te ñu ngi koy xaar ñoom waaye nag tey si ñu ñu gën am kontaan mooy la jeunesse du Sénégal ndax nag daf leen woo ci xeex nan leen ku dee sa yaay juraat ñun waxuñu loolu le fii ku fi dee ñu doon sa jabar moom su dee ñu doon jabaram donc balaa muy wax daay jàmbur yi nañu juraat moom na préparé jabaram ne ko soo deewee yow su ma deewee na nga doon yow et la jeunesse du Sénégal mu ngi koy répondre ci loolu ñun waxuñu ku dee sa de ñun waxuñu loolu ñun lu ñu wax dund pour teral Sénégal dund pour liggéeyal Sénégal dund pour jàppale président Macky Sall ñun taluñu dee dund la ñu tal taluñu dee liggéey la ñu tal taluñu dee liggéeyal président de la République tal léegi nag ñu ngi wax ne Ousmane Sonko ndax xam ne bés ni ki tey ñim doon manipuler di leen wax ay kàcc ñu koy topp xale yooyu màgg nañu il y a de cela deux ans xale yu amoon seize ans ñoom ñoo am tey dix-huit fen bi ak kàcc bi du béjjaaw te xale yi léegi ils sont conscients de la situation kenn dootu ko déglooti kenn dootu ko wuyooti lenn rek la def tey ñu kontaan lenn rek la def mooy nangu bu nangu wuyu ji ndax nag barki démb dafa amul lu ñu ko waxoon xam naa suñu conseil la topp moo tax mu wuyu ji te tigga tojul waxoon nañ ko soo wuyu jiwul ay xelal dañ la fekk jëlee la yóbbu la yaakaar naa loolu déglu na ko moo tax fajar la xëy dem tribunal na góorgóorlu ci loolu na nekk ku responsable suñ ko wooyee mu wuyu ji fi nga xam ne nag moom la ñuy terminer mooy monsieur le ministre Mame Mbaye xamal ne le parti est derrière toi xamal ne les jeunes sont derrière toi xamal def ça nous xamal ne foo woote ñu wuy si la xamal ne xeex boo woote ñoo si jiitu ñun ragaluñu ay républicain nañ nag dinañu wax ci njëkk dinañu wax ci teraanga waaye ku bëgg ruube dëkk bi da ñu jàkkaarloo ak ñun xale yi kenn dootul nangooti ñu toj réew mi di ko yàq di ko def naka sul noonu yoon dina def liggéeyam force de défense et de sécurité dina def liggéeyam mais nous la jeunesse du Sénégal nous ferons le tour on fera face suñu dëkk bi nga xam ne ñoo koy liggéey di ko lijjanti chaque jour ñuy dem di dikk du ñu nangu ay samba boo yu ñëw di ko donc tenez-vous prêts et soyez prêts dans les quartiers partout levez-vous comme un seul homme nous allons faire face à l'imposture nous allons faire face à l'indiscipline, nous allons faire face à l'arrogance et à l'impolitesse Voilà mon message, je vous remercie. ànd ak suñu collègue ministre yi fii taw ànd ak suñu collègue yi ñu parti bi yëpp dafa am solo ngir wax li jëm li xew ci réew mi ñu en tant que femme en tant que yaay en tant que jigéen simplement li nga xamante ni dafa xew daf ñoo intéressé te dañ cee bokk parce que bu ñu wooyee xale yi ci xeex suñuy doom ñooy wuy ji

mom la ñuy jël def ko un problème d'État il est temps que ça s'arrête il est temps que ñu distinguer wala ñu ràññee problème yi nga c'est essentiellement ay problème économique ay problème de yi ay problème chômage ay problème d'emploi. emploi ñu tek ko ci table bi population bi pouvons on peut être d'accord ci démarche mais quand il s'agit particulièrement ay problème jafe yo xamanteni y yow ya ko def ton sa morom

àbbul gémmiñ àbbul micro mais moi, wax xalaatam on est dans un pays de droit un état de droit on est en démocratie Si xëyee nga jël sa position wax ko ñu ni la ñëwal preuve de la nga De dëgg yàlla nag loolu suñu yoonu xale yi nekku ñi yoonu état une yoonu république nekku kon cette question encore une fois c'est la question de trop qui fait de sorte que c'est la question de trop

te nga tooñ loolu kenn dootu ko fi nam donc il faut que ñun jigéen ñi nag yàlla ko ñu may ñuy jur macha allah dañuy jur ndax loolu la suñu borom jagale mais duñu jur ñu rey ñu ñu rey ba pare ni dañuy ñu ko defee on n'est pas ñu ñu jur ñii ñu gis suñu doom yi ñoom lañ bëgg ñii bëgg ñii lañ ñu dund ñii lañ bëgg ñu yor réew mi ñu fi pour jur ñuy rey ñuy juraat jërëjëf donc damay introduire sama grand Farba moom Attention, la Lyon sénégalais ak sénégalaises yëpp di nuyuwaale ñi fi toog et di jiital ci nuyoo bi ki njëkk jël kàddu monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow tey dama am fierté bu rëy ginnaaw bokk ci APR ginnaaw nekk militant Macky Sall nekk un ami de Mamba Niang parce que monsieur le ministre Mamba Niang jamono amoon na yëkkati kàddu wax ci say wax lu jëm ci bii procès bi nga xam ne yaa ngi koy leeral ak le plus grand manipulateur du monde kenn mënu ko woon justifier ndax koo waxantewuloon rek ñu ne Prodac koo ñu ne Prodac koo waxantel ñu ne Prodac jamono yi nga xam ne nag yow mi ci sa bopp jëloon nga engagement ne lii comme que dañ tuumal

buy lekk dina fexe ba créer ay fen ceeb bi neex na wala neexul buy reer day fen fépp fu mu dugg rek day créer ay fen di ko teg ngeen ko du mu tudd turam mais tey Mame Mbaye jox nga fierté de ce parti et de votre leader monsieur le président Macky Sall ndax li nit ñi leer na ne yow liñ la doon tuumaal moom yi newoon na am na ay preuve a preuve yooyu nañ koo gis mu leer te it boo yóbbee ba neuf milliards ñu wax ak yow comme loolu yëpp ko nee nañu xamaguñu lan lay juddee chaque moment yaay demande ay report boobaa nan lañu loolu lan lay leeree ci kanamu sénégalais mais di remercier jeunesse bi yëpp déclaration démb mel na ne yaa moom sénégalais taxaw guddal sa sikkin ah. waaye yow mbir mi dafa doy waar waay mu mel na ne yow da nga taxaw yaa ilif ñi rek loo leen wax ordre la dañ koy appliquer yaa ngi bëgg jox sa bopp comportement boo xam ne amoo ko sénégalais yëpp soxla naa leen suba tribunal foo leen moomee foo jaaroon ak ñoom lan nga liggéeyal sénégalais ban preuve nga am lan nga fi def loo fi doxal nga ne leen naa naa ñëpp la te yow yaa yow yaa jiiñ nit ki dafa sàcc mu porté la plainte tey gis na sénégalais yi wala gisu leen néew ma gisu leen de mais li mu doon xaar gisul kenn wàll gi sénégalais yi nag ñoom ñoo dara gërëm te wax dëgg yàlla parce que les militants sénégalais yi moo ëpp doole militant parti beneen bi ci topp tamit wax dëgg xas magistrat xas sëriñ xas policier xas gendarme yéen mii waxal les jeunes de la dama leen di wax lenn nee na moom day jaay bakkan ku jaay bakkan ak koo xam ne nag daje na ak ku jëndi bakkan xam naa dinañ teel a jubóo wala boog dinañ teel a jubóo bu jaay pour pour pour jot pouvoir ñun dañ koy jënd pour conserver notre pouvoir ku jaay bakkan moom ñun dañ koy jënd pour conserver notre pouvoir te tamit ñu koy xamal leen am na loo xam ne ne newuñu police di def liggéeyam newuñu gendarmerie di def liggéeyam mais am na loo xam ne ne xaaratuñu police xaaratuñu gendarmerie noonu na leer ci nëppam fii laa ko waxee na leer na leer na ne kenn dootul tëdd à tout moment on est prêt pour le combat heure bu ko paree suba pare nañu waaw heure bu ko paree rek pare nañu

dina ko xam ci mbedday Ndakaaru maa ko wax te ñu koy xaar incha allah bu ci yàlla àndee merci beaucoup. donc merci beaucoup léegi nag on va donner la parole ak ki nga xam ne ne c'est la personne concernée monsieur Liss Mbaye Niass on donne à Mbaye Niass pour deux minutes. bonnan ɗo haalan ɗo ko forani haalde directeur des structures de l'APR le directeur des structures de l'APEIACA, M. Mbaïndiaï, prend la parole pour le compte de l'APEIACA. Lorsqu'un problème technique, juridique, vire du côté de la politique, nous avons la responsabilité morale de nous déterminer et de dire quelle est la position de la Périacar dans cette situation. Monsieur le ministre Mambaye, le parti auquel vous appartenez, la Périacar, pour ne pas dire Benogokiakar, ne vous abandonne pas seul dès lors que la question qui était simplement une question juridique, vire vers le côté politique, votre parti a le devoir d'être à vos côtés. C'est la raison pour laquelle, en tant que directeur des structures, je suis tenu de venir ici, au nom de la l'APERIACAR, dire à l'opinion nationale et internationale que la manipulation la manipulation utilisée pour, à des fins politiques au détriment de la vérité ne va pas nous laisser indifférents. Nous sommes un, un parti de paix qui a pris le pouvoir en utilisant le droit dans la gestion du processus électoral et c'est à travers ce droit que la deuxième alternative politique a eu lieu au Sénégal avec son Excellence le Président Macky Sall. Tout le monde peut faire la politique, mais il faut accepter et se soumettre aux règles du jeu de la démocratie. C'est à cela que nous appelons tous les Sénégalaises et toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais et le président Macky Sall qui est un homme de paix, un homme de paix, un homme de paix à la vision africaine pour le développement et l'émergence de l'Afrique, en particulier du Sénégal, cet homme-là qui est devant nous et avec nous doit être accompagné. Et à la jeunesse, je lance un appel de prise de responsabilité pour que le Sénégal qui est en train d'être construit, d'être bâti sur la voie de l'émergence, mais en utilisant le droit et la liberté, la démocratie et la justice, ce Sénégal soit sauvegardé avec nos acquis, nos acquis sur le plan du droit, mais sur le plan de la foi. Le Sénégal est un pays modèle sur tous les plans et nous avons à sauvegarder ce Sénégal-là, mais c'est pour vous d'abord, vous la jeunesse. Il ne faudrait pas qu'on vous utilise pour détruire notre pays. Salam alaikum euh, J'ai la chance de devoir introduire notre frère ami, Manda un grand militant, très responsable et très efficace, une des meilleures connaissances dans le domaine de l'aéronautique, c'est bien ça L'aviation civile. Et du courage, mon frère. Je vous passe la parole pour éclairer la nationale. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërë ngeen ñu déglu rek merci beaucoup ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye tamit di sant sama collègue yi ma togal ci table bi muy oui, madame le ministre Fatou Diané di une grande dame di joxe képp lay kàttanam pour doxal gis-gisu président ci jigéen ñi di nuyu di remercier mon frère et ami Abdoulaye Sow, le ministre Abdoulaye Sow, de par sa générosité et de par les efforts immédiats pour que le travail collectif mën am njariñ ci askan bi waye tamit mën am njariñ ci euh, suñu parti ak suñu coalition mention spéciale maintenant, mon jeune frère le ministre Pape nous. mention spéciale parce que a dogal na qui, beaucoup, beaucoup, président Macky Sall poste bi mu nekkone ma nekk fa ma xam nan la metté ma xam nan la diisee ma xam lan la laaj ci investissement personnel waye ma xam tamit lan la laaj ci mobilité ak compréhension Lui commencé day metti lu nit di door rek day metti mais suñu xel dal na parce que taxawaay bii nga am mooy taxawaayu ministre de la jeunesse taxawaay bii nga am taxawaay bii nga am mooy taxawaayu ku nekk ci pointe combat bi tey bari na ñu foog ni que ñu déglu ñu déglu bari na c'est important li ñuy wax pour ñu xam bari nous devons dire ni que Mambay dafa bari histoire Mambay dafa bari compliqué Mambay def mais Mambay dafa nekkoon ministre de la jeunesse comme Pape Malick et le ministre de la jeunesse est à la pointe du combat c'est le bras armé du régime c'est le bras armé du gouvernement moom madame la ministre de la femme parce que li ëpp ci askan bi ay ndaw ak ay jigen lay donc ma ngi len di gërëm di len remercier ci taxaway bi ngeen am li moy sa taxaway yow ku bëgg a jot Macky Sall dafa wara jëk jaar ci yow ci taxaway bi nga am woné na ni ko ne nangul do madame le ministre kuy dajale mbooloo ay jigéen ngay ut Le président Macky Sall def ak ak suñu régime ci jigéen ñi ak ndaw ñi tey war na tax kenn warul nëbbatu ñu assumer bilan boobu merci pour le courage et merci pour l'engagement am na ñaar ñoo xam ni duma leen remercier parce que dama jàpp ni que li ma boole ak ñoom dootul politique muy le ministre d'État Mbaye Ndiaye ak

ak ngëm-ngëm moo tax tey yàlla egsi ñu fii ñu farba fierté bi nga am pour wax ni que man sa xarit laa wallahi fierté bu baraw laa am farba ak lu mën ci def doy na waar comme man mën nañ xuloo ci suba bu ngoonee ñu toog waxtaan parce que benn ngëm-ngëm moo ñu boole moom xam na man xam naa yàlla xam na bu loolu weesoo xëy na bu yëfi yi doon doxee yoon tey du toog fii sama waa parti jóg taxaw parce que wax dëgg yàlla lu lu yomb la maa ngi jéggalu parce que bi ñuy yéeg nit ñi ñoo bari mais waroon naa nuyu suñu euh, suñu tataar parce que ñun ñëpp wax dëgg yàlla uuf nañu muy madame le ministre Ndeye Saly Diop jërëjëf jërëjëf jërëjëf pour effort yi la def tey suba ba léegi jërëjëf pour investissement personnel bi ngay def pour jàppale xale yi pour que bi am visibilité

du lu bizarre du loo xam ni jar na egg fenn fi bay indi benn tension bi li tax mooy dafa am benn nit bu tudd Ousmane Sonko bu toog ni moom xam li am ci il est mieux renseigné que le président de la République moom moo toog ni am na rapport IGE bu ma épinglé ci coow loo xam ni dinaa ci ñëw léegi fa mu jógee man awma gàcca wax ko awma rusu aborder sujet boobu parce que wax naa ci waxati ci waxati ci mais moom fa baatam toll baatu ñu bari toll fa la muy woote ni que moom la xam ñu bari xamuñu ko donc li ma mën a nangul kiy jaay kafe ci mbedd mi mais moom duma ko ko nangul duma ko ko nangul nee na am na rapport bu ug mu dem police ni dafa juum ni IGF mu génnaat foofu dem euh, euh, Kër Massar ni rapport bu IGE bu mu liir ci internet lépp loo gis am na jamono bu muy egg nag naan ko taxawal bi ko waxee waxoon naa leen ni ko egg na ci daj dëpp bi billaahi egg na ci daj dëpp parce des na normalatul ñuy fooyee xelu nit ñi sénégalais bu nekk fii bu nekk ci ñun am nga sañ-sañu laaj réew mi ku nekk ci ñun am nga sañ-sañu ci réew mi ku nekk ci ñun am nga sañ-sañu dox say droit ba mu mat sëkk waaye tamit nga respecter say devoir ku nekk ci ñun am na sañ-sañu bokk ci parti politique ku nekk ci ñun am na sañ-sañu dem société civile ci république lañ nekk république ñu ñépp xam nañ leen lay doxe waaye léegi boo demee di uti waay waay waay damal seeti nit ñi nga wax leen sa yéene ci réew mi waxal li nga nar a def ci réew mi waxal fi nga bëgg a jële Sénégal ak fi nga ko bëgg a yóbbu mais lan la ci ay sos ay wax lu dul dëgg c'est pas la première fois maa ngi def benn exercice ak ñenn ñu ma jege ñi ngi répertorier ñaata yoon la wax te du dëgg mais bii dafa garaaw bii dafa nar a wane ni que lim ñuy wax ñun ñii ñëpp na xamuñu dara ay sàcc la jubuñu jànguñu dañu fay teg pour ñu koy saaga musuma dégg ma saaga ko li xew tey ci tribunal mooy démb man bi ma ko dégloo dama ni sama rak bi ma dendal maniko ko nañ wax alhamdullilah parce que nee ñun ci ay tiaxan lañ nek et que suba tiaxan yi dina jeex def na lool la wax donc man jappon na ni tay buñ démé tribunal dina génne lim am rapport bo xamni da nga tok team sénégalais yi sa portable lire ni li rapport la mo épingler mambay ñaar sa député nga yónni woon ko assemblée nationale mu koj ma la mu bëggoon amu ko yow nga ñëw nii rapport bi yaa ko yor waay waay waay waay waxoon naa leen bu mu reporté bu delloo avance bu def leneen na ñëw rek mu ni buqeet rapport bi léegi lii muy def nag dama leen di wax pour lan mu koy def man Macky Sall yónniwu ma Farba Ngom ma kenn ci yéen waxuma ci ak kenn man maa dégg déclaration ma woo samay avocat ma porté plainte ba pare woo leen yéen journalistes yi jël leen seede ni leen bu produire rapport ma wax leen nan la rapport di mel wax leen rapport kan moo ko mën a def ma ni leen na leen ko jox yéen ngeen publier donc ay woote ci mortel combat ay kaay leen jàppale ma ma rey jaru ko si le président de la république waxoon ma mbay retireel sa plainte wallahi azim je préfère ma bàyyi dem toog plainte parce que qui, qui, du wax dëgg qui, jubul kii mi ngi parce que bu ko ngorom maye mom mu am responsabilité tok wax après genn ni man Macky Sall moo yoni moy man yabuma sénégalais yi kay déglu diko gëm la yab Ousmane Sonko foko na ni tay bo ñëwé tribunal da nga nan bu xeet rapport tek mais man dinaa wax sénégalais yow yaay kat dina wax sénégalais ni que do wax ko du dëgg dinaa wax sénégalais ni que nit ku bon nga et je dirai à la jeunesse sénégalaise à travers Pape Ndour ni que c'est un manipulateur musu leen dégg musu leen dégg mu ni leen lii laay def ci njàng mi musu leen dégg mu ni leen lii laay def ci jigéen ñi musu leen dégg mu ni leen lii laay def ci xalé yi mais amna len lenn lu mu wax

ci mosu leen dégg mu ni leen ñaata tonnu gerte lañ fi bay lii laay def pour yokk ko mosu leen dégg mu ni leen ndox mi dafa manqué Dakar lii laay def pour yokk ko mosu leen dégg mu ni leen courant bi fii la doyul dinaa ko def mu dinaa ko lii amul Mame Mbaye Niang sàcc la Farba Ngom sàcc la Mbaye njaay sàcc la Macky Sall deful dara Macky Sall xamul dara moom moo xamul dara parce que dinaa leen wax tay lo xamni ni man tay la ko xam ci tribunal Ousmane Sonko limi wax lip. lepp lepp lepp dafa fogo ni ko man dama nekkon coordinateur product tay tay tay mom neena mo tey rapport neena mo am rapport neena mo xam li président di nee na ñoo téye document yëpp mais Ousmane tey la xam ni que man Mame Mbaye Niang musuma nekk coordonnateur u donc yéen sénégalais yi laay wax yéen sénégalais yi laay wax s'il vous plaît s'il vous plaît

jot na ñi xam di wax ñi xam administration di wax ñi xam nan la réew di doxe di wax parce que IGF ministre mënta bokk ci champ d'action inspection générale des finances kuy ordonner ay dépenses lay auditer kuy administrer ay crédits lay auditer un ministre n'administre pas un débat yi damay dégg ñu naan non il faut de gestion mais pour des gestion moins gérer donc moom nee je ñun xamuñu dara de moom ENA la génne def na 15 ans ministère des finances beaucoup de départements, wala bokk ministères, ministère waa IGF te ni xamul loolu lii ana politique lan moo ciy politique. donc rapport IGF amul leneen li muy wax ay nitam naan non Macky moom nee na euh, euh, rapport amoon na Ousmane Sonko bu xamul ni que décret bu ko koy def di remplacer un directeur da ngay def rapport de présentation jox ko président pour mu def beneen décret ñu jël fa nit ki mooy képp kon bu xamul. léegi man dinaa bind man rapport man bu ma épinglé man. ki ki ki sànq wax ko kii di abrutir il est en train d'abrutir la jeunesse sénégalaise ki mingi nek di yak deru nit ci ay sos yo xamni mom xamna ni sos la mom mi kay wax xamna ni limi wax du deug day wax ba ki ki kay tim ci ginnaawam day tit kan moo fi mës a gis rapport IGE ñu koy publier internet yow nga ni ENA nga génne nga ni rapport IGE bi nga lire internet la les rapports de l'IGE sont classifiés pour que nit mën ci jot dañ koy déclassifier yow nga toog tiim say junni nit ni leen man rapport du IGE bi ma gis internet la ko gisee li mu wax ni que li wax ni que juge bi loolu la bind ci moom na médecin yi dem xool ko il doit être un psychopathe doublé d'un menteur Prodac nag ñu ci bari ba tey ci suba waa web dama gis ñu bind l'ancien coordinateur du PRODAC musuma nekk directeur ministère de tutelle la fo woon tey SICAP bu amee problème duñ wax Ablaye Sow la directeur u SICAP la wax SNHLM bu amé problème buñ koy auditer duñ laaj Ablaye Sow directeur bu lañuy auditer audité Sénélec bu amee problème duñ wax ministre ba mo am problème nekkuma fi pour défendre le projet, je me défends moi-même parce que man lañ diffamé parce que ay at mi ngi nii ñu naan mbay Prodac am na ku dem fële génne génne génne rapport taxaw ci diggu assemblée bi te naan rapport baa ngi nii yéen ñii ñëpp ku ci yor rapport bi mais na ko dem jox bu ko génnee léegi wax ji jeex bu fekk bu fekkee yor na rapport comme li mu wax na ko rek génne donc bu mu nax nit ñi naan da koy politiser man ak moom la yoonu Macky Sall nekku ci yoonu Farba Ngom nekku ci yoonu Pape Malick bokk ci li ci li leen ciy dugal mooy est que xam na ni que perte na mais daan nañ ci seen i nawle ay journaliste yoo xam ne ay politiciens ñoo leen waxoon ni que rapport am na dinaa leen ko jox ñu bindu ko ñu dem tribunal nee nañ xaw ma lan Cheikh Yérim Seck mas na def déclaration wax ni ko dama am interrogatoire Euh, conseil des ministres, mais pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, je parle devant témoin. Cheikh Yirim Seck le lendemain Seydou Gueye porte-parole du gouvernement moo communiquer, démentir man ben parce que ci ki le jaarale le joxe xëy na ñun ñii ñëpp ci keppaaram lañu nekk mais yàlla moo def man ak moom man ak njabootam ñu seq leneen lu dul politique comme ni ma demee ba seq leneen lu dul politique ak Farba seq ko ak Ablaye seq ko ak sama nijaay Mbaye Ndiaye parce que ku nekk sa nekk nga jóge man sama yar mayuma nit wóolu parce que ba ñuy xeex ñun ñii ñëpp ñoo doon xeex dàqu ci woon xeex kenn ëpp ma ci woon taxawaay kenn mu seppi ma ci kóolute dénk ma man duñ jaar ci man di ko yàqal je préfère man ma bàyyi. ba ñu organiser clameur publique ay réseaux sociaux lañ ko waxee amul benn nit booy wax amul benn nit boo mën a jël.

yow nga bëgg a nax ay sénégalais bëgg a saaga Macky jiiñ ñu sàcc ñeneen yi xëy na yàlla may na leen xolu muñ loolu mais man du ma ko muñ du ma ko muñ moom nee na am na rapport moom moo ko wax mais na ko andi léegi nee na dañ ko bëgg xañ pour mu nekk candidat bu fekkee lii moo koy xañ mu nekk candidat na jàpp ni ko game over li xale yi di wax nañu bayyi naxante yi nañu bayyi yàq xelu ndaw yi ñun ki ñu àndal ñun ki ñu àndal ci ngor lañu ànd ak moom ñun ki ñu àndal ci njub lañu ànd ak moom ñun ki ñu àndal ci liggéey lañu ànd ak moom man neewuma sama leader transformé na Sénégal waxuma loolu mais amul benn pàcc booy jël ci ñi ñuy dundee boo xam ne fekk ko un yóbbu ko quatre amul léegi nag pour tëj ci Ousmane Sonko jàpp naa ni xeex bi du xeexu affaire xeex bi du xeexu Benno Bokk Yaakaar xeex bi xeexu citoyen sénégalais yëpp parce nit nit nit ko xamni limi wax lépp ay fenn limi def lépp dara du ci dëkk limi wax yépp gëmu limi wote muy du ci xam-xam du ci jaar-jaar du ci man-man du ci lu len wan kooku lañ war a puus parce que fépp fu jaar abou dirno ena bin génne fofu la magistrat yi génne

muy yoni xale bi ñu naan mooy t-shirt bi la soloon ay xoolal ni tolloon le 23 juin man bi may yéeg ci gris xaar le 23 juin bi may yéeg ci gris maanaam ministre d'État may Ndiaye loxo ak loxo déglu leen ba ma koy def j'étais cadre de l'aviation civile j'avais le salaire d'un député du ma woon chômeur de dama daan liggéey tour de contrôle approche CCR manifestation jot ma saraxu samay collègues ñu téyel ma ma dem manifester ji parce que ngëm-ngëm la parce que ki ñu àndaloon def ni ñu lépp lu am nañ ko def ci réew mi tey ni moom laa àndal bu dee xam-xam bu dee xam-xam lii mu nekk di wax wane nekk xamul dara vous voulez vous donc il faut arrêter il faut arrêter cette imposture au nom de la République il faut arrêter cet imposteur au nom de la République il faut arrêter ce monsieur parce qu'il est en train de secouer les fondements de la République il faut l'arrêter parce que il est en train de disloquer notre société il a amené un débat d'ethnie. Il a amené un débat de religion. Il a amené un débat de tariqa. Il est en train de collecter partout où il y a des frustrés. Sa mission est de les contacter et de proposer une dissidence. Uniquement pour accéder au pouvoir et assouvir ses peines. C'est un danger pour la République. C'est un danger pour la nation. C'est un danger pour notre société. C'est un danger pour notre religion. J'appelle les hommes de foi qui pensent qu'ils accompagnent un homme de vertu. diine qui qui kuy qui kuy njaaloo ku nekk ci qui kenn du ko jàppale bu vous. Vous yenn nit yu nekk ci l'islam insurrection surtout koo xam ne day woote insurrection ci ay fenam yow yaa jiiñ mambay lii mambay ni la kaañ dem tribunal nga ni xale yi génn leen ñu dee mais loolu ku ci dee defe ni ci dëgg nga dee ci caaxaan nga deewee ñun ñëpp ay fàttaliku Mamadou Diop bi ñuy xeex na touche pas à ma constitution dëgg la woon dañ ko gëmoon Mamadou Diop bi muy nodd pour ñu julli àjjuma man maa ngi ci ginnaaw ku dem xool vidéo yi gis ma ci tey kuy wax wax bu dëgg kuy wax waxu combat bu sincère di nga du jóg Diop ana ñi ko deewaloon ci salon de massage bi kan turu kan ngeen ci xam ci ay caaxaan lay woo nit ñi ci ay caaxaan lay woo kilifa yi ci ay caaxaan la bëgge a tase dëkk bi bu ngeen ko arrêté wu man en tout cas dinaa ci joxe sama bakkan pour mu arrêté parce que jihad bi moom loolu muy woote c'est de ñun nag ñoo ci war a njëkk a taxaw ñun ñoo war a njëkk taxaw lii muy def di ñoo ko daal benn ñaar ñoo ko ëpp fit ñett ñun ñoo nekk ci dëgg ca ku nekk ci dëgg doo ragal ku nekk ci dëgg doo yox yoxi ku wéeru ci mur ci mur nga wéeru ku wéeru ci yàlla ci yàlla nga wéeru waaye ku wéeru ci rido booy puux nga xam lan mooy rapport li jàng nga ENA nga ñeme ñëw tribunal Nan da ngay laaj ay rapport ay samay avocat jarul avocat le jour où il sort un rapport qui épingle Mame Mbaye peu importe le rapport IGE IGF pour des comptes FBI CIA rapport bu mu am bu ko ëndé man ma démissionné jox sama bopp mais fenkat la du ko def ñun ñoo nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg do ragal waratul waratul parce que nag li ëpp ci askan bi ñi ngi gis li ëpp ci askan bi ñi ngi xam li ëpp ci askan bi banañ ko ñamu àndaloon banañ ko Yewwi tas na loolu mooy dëgg bi biir partem ñi ngi ut candidat c'est la vérité yow man may xaar rapport amoo dara looy indi lu dul ñëw taxaw ci tribunal bi yor ay béjjën ay ndombo man yooyu faalew moom xeeñ saafara xeeñ xurmu saafara bu defee ne ni ko yooyu moom moo ko ciy génne nax na boppam fii dina indi rapport dina indi rapport justice dina am ci kàttan yàlla je